di mutar Balla laay jooy koo kay sama sëriñ moom rekk laa miin fa may jëlee teeleneen kuy man mi sama xol bi dafa toog mënoo ñàkk faw faw rekk ma jooy Samu makenen xamay jale teelenen kuy man mi sama xol bi dafa tooy mënoo ñàkk faw faw rek ma jooy li tax ma jóg taxaw jàqle lool fay jooy Mon objectif, c'est de créer le maximum d'emplois chez les jeunes ici. Et l'Afrique doit faire partie de ceux qui ont du sang pour son développement. Euh, xamuma keneen fu may jëlee teeleneen kuy man mi sama xol bi dafa toor mënoo ñàkk faw faw rek ma jooy li tax ma jóg taxaw jàqle lool fay jooy xamuma keneen fu may jëlee teeleneen man mi sama xol bi dafa